Imaam ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay xaalis. Ah, jot nga gis euh, Ousmane Sonko. waaw président tout d'abord ñu ngi nuyu Sénégalais yëpp. Euh, di mastawu ñi nga xam ni dañoo am ay blessures ci mbir mi nga xam ni moo fi xew ñaari fan yi Sénégalais yëpp di ko naqarlu te mu nekkoon luñ mënoon a éviter. di mastawu tamit ñi nekk ci kaso yi parce que ñi ñu jàpp bari na trop euh, di wax ni rek. la Seydina Ababacar waxoon bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanoo koroog saxaaba yëpp dañoo jaaxle lool moom naa Ababacar bi mu ñëwee mu ni man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammad xad maata wa man kaana yaabudullaha fa inna allah xayyun laa yamuut maanaam projet bii ñu yëkkati Ousmane Sonko moo nekk ci bopp bi waaye du projet Ousmane Sonko projet Sénégal la loolu dafa baax ñu xam ko kon ñi nga xam ni dañoo jóg pour ndërmeel projet bi même buñ fi jëlee Ousmane Sonko dama gëm ni mënta nekk dafa loolu lu impossible la même ñoom buñ defee pexe ba jëlee fi Ousmane Sonko nañ xam ni junniy Ousmane Sonko ñu ngi fi taxaw. ma daaneel c'est important. junniy Ousmane Sonko ñu ngi fii ci Sénégal te ñoom ñëpp Ousmane Sonko ëpp leen engagement gënu leen a déterminé dafa fekk ni nag moom la yàlla. jiital ci kanam te yonent bi nee na ay nit bu ñu àndee il faut kenn jiitu kon ñu ngi dalal xelu Sénégalais yi bu baax ci ni projet bi li tubaab yi wax naa il faut pas arrêter la mer avec ses bras kenn mënatu ko arrêter parce que Sénégalais yi ñoo ko accepter seen bopp kon li am Sénégal yëpp gis nañ ko mënaguñ cee wax parce que médecins yi ñu ngi koy xool parce que réew mi ci histoire politique gu Sénégal mosuñoo gis Ousmane maanaam Ousmane Sonko li mu subir ci ay jafe-jafe subir ko ci ay ci ci injustice ku ko subir comme moom bii nag dafa fës rek waaye yàgg na ko subir bii nag dafa ëpp te wolof nee na trop c'est trop moo tax ñun duñ ko bàyyi noonu dinañ ko topp parce que li liñ ko sotti xamuñu lan la xamuñu posen la xamuñu lan la loolu médecins yi ñoo ko mën a wax waaye man li may wax mooy projet bi day continuer combat bi dañ koy continuer li ñu gëm mooy Macky Sall moom moo nekk ci pression mais ñu nekkuñu ci benn pression parce que ñun li ñuy def yëpp constitution bu moo ñu ko may loi yi may ñu ko ñoom nag ñoom ñooy jëfandikoo doole ji nga xam ni réew mi moo ko moom état bi moom ko di ko dóor ci kaw ay sénégalais te loolu mënatul a continuer. jot nga teg bët euh, imam waaw man bokk naa ci Sénégal yi njëkk am information bi démb ci guddi euh, bi muy xam ngeen ne bi ñëwee dañoo brigadé woon këram ni kenn du dugg même bi ambulance bi ñëwee taxaw na lu yàgg pour mën a accéder bi muy génn këram lii dëgg mooy dafa am malaise la génnee këram maanaam dafa piqué crise parce que am malaise nekk ci ay jafe-jafe lool ci condition yooyu la ñëwee fii lu mu fi nekkee nag man mënuma ma koo xam parce que du ma waaye li ma mën a xam lépp lu dal Ousmane Sonko benn responsabilité la du ñaar mooy Macky Sall ak Antoine jom loolu ñu ngi ciy jël témoin opinion nationale bi ak internationale réew mi dafa am fu mu jaar ba ak si seen loxo procédure yooyu mu jaar ba ak seen i loxo ñoom nañu respecter procédure yooyu pour keneen koo xam ne sénégalais yi ñoo ko bëgg a jox ñu nangu kooku jël ko. réew mi fii encore une fois ku fi yee fitna nekku fi ku fiy woote violence nekku fi ku fiy woote leneen lu bokkut ak yoon amu fi ñun lépp lu yoon mayewul duñ ko def parce que xam nañ lan mooy yoon mooy li li communiqué bi Pastef génne dégg ngeen communiqué bi yen ñëpp dem leen ngeen lire ko résistance la pour ñu soppi réew mi. Mhm. yaa ngi dégg bu kenn xo bu kenn maanaam fii ku ñuy xoqatal amu fi. Mhm. maa ngi wax sénégalais yi ñu taxaw bu dee kaso yi nañ ko ubbi ñu dugal ci ñëpp. parce que ma daaneel ñun ñëpp waaw déglu ma waxuma waxi Mame Mbaye Niang déglu li may wax nii xaadim sinon ba bu ma fi tuddal Mame Mbaye Niang damay wax ni kaso yi ñun kaso mënuñoo xoqatal sun maam yi ci kaso yi lañ nekkool te réussir nañ seen mission Serigne Touba résidence surveillée la nekk ba ni te téewul am na ndam ca lam doon wut yaa ngi dégg. mbooj ñan lañ yaa ngi dégg loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ci turu parti bi yëpp parce que man légitime naa pour wax ci en tant que porte parole du mouvement des doomu daara patriote kon dàmbooj na nga porter plainte nga topp ko réew mi kenn mënu fee xoqatal kenn kenn woote wu tamit violence na leer ñun suñu àq ak suñu yelleef lañuy ñuy revendiquer te gëm nañ ni buñ ca demee dinañ ñu ko jox ci nii wala ci nee. léegi ñi ñu jàpp nag euh, te defuñu mais ñi ñu jàpp mënuñu lu dul ñaan ñu euh, demander ñu libéré leen nu mu gën a gaawee loolu la ñuy def parce que jàpp ni téye te amoo benn motif boo ko jàppee. loolu amul loolu loolu caaxaan la yaa ngi dégg yaa ngi dégg nañu conscient te dal réew mi mag Sall moomu ko Antoine Diome moomu ko Ousmane Sonko sax moomu ko Sénégal république la bu mag bu yàgg yaa ngi dégg ba dox ba dugg ci seeni loxo li ko dugal ci seen i loxo nañu respecté loolu ba delloowaat ko ci yeneen i loxo waaw jërëjëf encore une fois ma daaneel maa ngi dégg ay nit yu jóg ni dañuy def médiation di tuddee seen bopp ay imam ñun kuy woote jàmm ñun ngay jàppal man mii sama message yàgg ngeen a dégg may wax médiation te loolu laa gëm parce que dem naa ba toog ak président de la république te ba ma koy def làqatuuma nëbbatuuma dama toog ak moom jël samay responsabilité wax ak moom sama xalaat comme ñun bañu ñu médiation mais am na ñoo xam ne aptuñu pour def médiation association des imams et oulémas di Sénégal ñooñu mënuñoo def sunu médiation ñun boolewuñ leen ci parce que ñoom dañoo far ku far mënoo def médiation bu fekkee ne am na ku mën a def médiation ci réew mi mooy association des imams prédicateurs du Sénégal mooy bi imam Dame Ndiaye jiite wala ku mel ni mun Mountakha wala Serigne Babacar Sy Mansour mais maa ngi dégg benn imam mu dem TFM tey di chargé Ousmane Sonko yaw bu dee da def médiation te nangoo wax ci troisième candidature yow ab too pour def médiation nañ jël seen i responsabilité ku far man imam Dramé damaa far ànd ak Sonko nëbbu ma ko làqu ma ko imam bu far ni da nga ànd ak Macky Sall jëlal say responsabilité waaye ku far mënoo def médiation te ñoom dañoo gëm ni dañoo far kon ñu pour def médiation tëju mi ñun dañoo gëm ni ci table lay mujjee waaye ku yaakaar ni xoqatal nit ñi wala traquer nit ñi jàpp leen mooy tax nga am jàmm loolu mënul nekk il faut pas arrêter la mer avec ses bras te combat bi encore une fois du combat Pastef du combat parti politique combat wu génération la Frantz chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir ou la trahir loolu la Frantz bu dee alxuraan li mu wax leer na Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes taxaw pour réew mi moom boppam jot boppam bu laajee ñu fàtt ñu nañ ko def ñu taxaw résistance pacifique constitution bi moo ñu ko may loolu la ñu wax leneen lu waay wax engagé wul Pastef mais Pastef la mu waxoon mooy Ousmane Sonko kenn mënu koo tere mu bokk te buñ ci demee wan nañ leen ni rapport de force baa ngi taxaw peuple baa ngi taxaw ci wetu Ousmane Sonko pour wane ni day bokk bu dee dañuy jë tëje nag man mi ñu may menace di ma dal man fa ma jógee mënu kenn mënu faa jógee di ragal bu dee keso jox nañ leen sunu loxo yi pour ñu jàpp li ñuy bañ rek mooy ku ñu fenal nañ am courage bis bu ñuy jàpp ñu wax liñ ñu jàppee mooy Sénégal rek moo tax ñuy wax ñun yaa ngi dégg waaye buñ ñu sosal yaa ngi dégg loolu la ñuy wax parce que ñu ngi may menacé tiit ay bal du tere ñu wax sunu xalaat liñ dem daam mbooj loolu tiitalul kenn tey li ñuy gën a dem ci plateau yi défendre projet di wax procureur na ubbi autosaisir ci liñ def Dame Mbodj parce que assassinat la dañ ko bëggoon a rey. kàddu yu amee Suzanne Camara loolu Sénégalais yëpp dégg nañ man am na ñoo xam ne dama dama rus a tudd seen tur parce que amuñu benn importance kon jarul ñu leen jox benn importance ki am importance daal mooy ki tëdd fii porté suñu projet 2024 ñu war ko yóbbu pare te kenn mënu ko arrêté ci kattanu yàlla. asalaamaaleykum